màggal gi moo di ndigal lenn nu lu fi waxal boppam te daa ko digal murid yi koy gëmate màggal gi moo di ndigal ay waa أعوذ بالله شمع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جينا بسنت بروم سبحانه وتعالى دجل سانغ سانغ مي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ساس نيو كاي ديفي نيون وايل فيزون ميديا في توبا مباكي با ليغي فاسين لين دت لب لو خامتاني خيونا تي ماغال جينا بون جوغي جوما جا تي خامتاني موي كيري نيو كيرو كيلفا ديني نيغي نيو فاسين ديم تي دالي فاسين خول نان دالي نان لا تي دالي أنا نان لاي اكيري ان شاء الله ربي لا leen dëkk ñun waa El Vision Médias tey ci 18 safar gi tey moom duñ bàyyi dara lépp lañ leen jox incha allahu rabi ayca Balla soo ma toppee rek ñu dugg ci biir dal bi xool gars yi nañ leen maa ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm bu baax. dal bi. dal bi neex na bu baax a baax. ñu ngi taw bu baax. gaa ngi berne di teral. ana waa waañ ñu ngi si biir ñu ngi def seen liggéey. xam naa ne boo yeggee si biir sax di ngeen di fekk. tey loo leen préparé ci 18 moom macha allah xam naa ne dañu war yëpp. mënuñu ko mais dinañ def ñun di jéem di def li nga xamante ni ñun moo ñu war comme que ñun moom mënuñu def lépp dinañ def lu ñu mën lu ñu mënul nag moom ñu ñaan yàlla li ñu jot a def ñun na ñaan yàlla yàlla nangul ñu ko di ñaan yàlla fekkee ko at yu bari te te di ko teewal ci bésam bi ndax sëñ bi moom moom nee na ñëw santale ko bésam bi kon nag ku mën a ñëw rek na nga ñëw ñun ñuy ñëw moom ñu ngi si gis suñu bopp bu baax di ñaanal waa dal bi bu baax chaque at ñu yokk bu baax ndax lii moom rafet na trop yaakaar naa liggéeyu sëñ bi la ñaan yàlla muy yokk bu baax a baax a baax yaa ngi xoolee ay pompiteer yooyu noonu de. waaw waaw waaw ñoo ngi ci liggéey bi quoi nekk ci liggéey sëñ Bamba bi rek. waaw gis nga de bilaahi nekk ci rek quoi comme ça sëñ bi moom moo ne ñu nekkal ko fi mu nekkal ñu fi. xam nga ñu moo tax ñoo ngi ko ciy nekkal quoi vraiment xam nga nekk ci liggéey bi rek. waaw di di sàkku ngërëm bi rek xam nga waaw. ban comportement lañ war a yor ci màggal gi. waaw comportement bi comportement jullit comportement xam nga murit comportement vraiment lu ñu sëñ bi digal quoi parce que ñun ay taalibe lañ duñ jëfe lu dul ndigal kon nag vraiment war nañoo mën a xam nga bu ñu toog bu ñu nekkee fii ñëw ba ñëw dëkk bu mel ni Touba war nañ fi indi comportement bu rafet daal indi fi comportement boo xamante vraiment référence la ñuy doon à travers les autres daal. ba léegi maa ngi fii de ci dal bi fas yéene xool nu ñuy teralee gan te tey daa mel ni heure ndekki laa tombé de salaamaaleykum yaay booy. <laughs> maaleykum salaam. maa ngi ci jàmm. ci jàmm. Euh, naka dal bi. dal bi day moom mi ngi nii rek. ak ah. yiree gan sant yàlla bu baax. Uh-huh. Mm-hmm. Euh, xanaa ñaan ñu gudd fan rek ak wér te yàgg ñoo dalal an dund ba ànd ak seen njaboot di ñëw borom kër gi gudd fan te barkeel ko njabootam njabootam yépp ñu tekki ba yor ko faaw barke borom Touba neex na lool màggal sëriñ Touba am lu ci waay def yaa ko moom waaw nag ba ci gilem ci waay def yaa ko moom ak sama yaay bu mu tim boolu laax bi nii waaye yaa noo sant man Sarr laa sant yow ma sumb laax bi nii. <laughs> xanaa caabir yeeg njaayeen yi. <laughs> na nga gisee màggal Touba gi. ah màggal gi de moom xanaa neex rek. Mhm. fi mu toll dama neex na trop trop trop trop kontaan nañ trop. ndax dëgg yàlla gan ñi ñëw nañ. sonn nañ ñu ngi def lu ñu war a def. Mhm. yal na nu yàlla sëñ Touba fay. te dal bi yal na ko yàlla sa yéen ñi ñëw itam yàlla ñu fi yàgg yàgg indi. Mhm. ba ngeen dund ak jàmm ba ànd ak seenu njaboot. màggal gi daal fi mu toll commencement bi moom neex na trop te lañ ko fas yéene yeggale incha allah bu soobee yàlla. waajtaayu màggal gi noonu nangeen koy defee yéen waa Touba. waajtaayu màggal gi. Ah. xanaa kenn ku nekk fas yéene wàcc say wàcc say lal laat laat kom jekk jox ko say gan. fas yéene bu bu ñëwee nga teral leen. ak yéer leen yiir leen ba ba ñuy dellu ñaanal leen ñu delluwaat ci jàmm ak salaam. ci barke Serigne Touba mi leen mi leen tax di sonn yal na yàlla saa borom ba delloo ci kaw jàmm ak mbégte. defal leen lépp lu lépp lu ngeen gën a bëgg. ñu ngeen fi fekk itam ñoom itam dund ak jàmm ñu ñaan yàlla rek rek di am lu leen lu leen di teral saa bu ñëwee am lu leen di accueillir gan ñi am lu leen di teral ba ngeen ñëw ci jàmm ñibbi ci daal lañu ñaan incha bu soobee yàlla. la ñuy ñaan. jërëjëf waaw baax na jërëjëf waay. naa ba jógee waañ ba jugu jógee si li nga xamante ne ñoom ñoo dalal gan yi dafa mel ni salle bi nit ñu fas xool rek ndax salle bi gis naa ni fees na del ndax waa Touba dañoo laab yu wàcc na seen i lal génn seen i salle jox ko gan yi ñëw dugg léegi xool na moo nekk ci salle bi incha allah rabi ci topp ma baa la ñu dem salaamaaleykum wa rahmatulah. ziyaar naa leen. yéen a ci jàmm. ça va alhamdulilah. naa def. sant yàlla bu baax. ziyaar naa la. delloo ziyaar. naka màggal gi. Ah, waaw ñu ngi koy wax dëgg fa yàlla ñu ngi ci bésu sëñ Baba bi di ko waajal rek ñëw fii. man maa ngi jógee Caajaay. Caajaay nga jógee. waa Caajaay laa jógee. nu gisee gan yi waa kër gi niñ la dalalee. Ah, kontaan ci ñoom rek wax dëgg fa yàlla. waaw ñu ngi yoon bésu sëñ Baba bi ma wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. waaw ñu ngi wax dëgg yàlla parce depuis yàgg na trop chaque jour fi la ñuy mais wax dëgg ay borom bu baax lañ daal fii moom wax dëgg yàlla kontaan baax parce que nit ki nga xam li ngay dund ak moom rek moo waral tey saa yu demee tax nga day amaat envie ñëw parce que tey am na loo xam su ko dund ak ñun itam mhm. suñ fi jógee dootuñ fi ñëwaat mais na li muy a a yaatu ñu wax dëgg yàlla kontaan ci ñoom trop nag Baye Fall nuyu naa la waa ñu ngi lay fay bu wër waaw ñu ngi si jàmm ngi si jàmm naka waaw daal bi moom sant Serigne Touba rek. Ah. waaw sant dama safar gi tey ci dimanche bi. waaw ñu ngi koy dund moom di koy màggal moom. waaw comme ni ko sëñ bi bëggee rek. ñu ko siy fekk si. def si lu ñu mën ak lu ñu mënul ak yëpp ndax amuñu kenn ku dul sëñ bi daal waaw. acca dama yëg fële kii naan la def daa sañ see nii ci 18 safar nii. màggal gi. waaw màggal gi sant rek ñu ngi sant bu baax wax dëgg fa yàlla daal. màggal yëpp daal ay sant la ko daa mel ni waaj nga 18 ndax gis naa la nga def sa jeesneer bu baax dañ ko dalee waaj daaw lañ ko commencé woon waaj. ba ren ñëwaat nii ko fi mu toll bu passé rek suba sax. Mhm. dañ koy tàmbalee di waajaat. Mhm. ba keroog muy esquiwaat quoi. li may dégg na noo gisee waa kër gi ñu la dalalee. Ah, waa kër wax dëgg fa yàlla li may laaj sama waa ji léegi moo ci nekk rek mhm. yaakaar naa bañ fa nekk ñoom kóllëre ak léegi bu ëppul fukki at yeesoo ko quoi wax dëgg fa yàlla parce que dem nañ ba ay mbokk am na suñu diggante parce que ñi fi dal xaaj bi ñëwuñu ñenn ñi yàlla def na dañoo voyagé ñu ngi bitim réew ñenn ñi yàlla def na dañoo génn àdduna ay dëjëk lu mën di xew muy naqar bana lu mën di xew dañuy soog seen daal ñëw ba caajaay couleur am na suñu diggante ba pare daal wax dëgg fa yàlla daal ñu nekk ay nit ñu baax waaw parce que boo gisee suñu rakk yi itam wax dëgg fa yàlla noonu la demee kër gi mën naa bi ñu fi doon dal fukk la ñoon wala matu ñoon fukk sax benn groupe la woon rek mais demee ba léegi suñuy rakk ak ñëpp ku jógee caajaay sax boo ñëwee même boo fi dalu sax di nga fi jaar ndax kër gi yaatuwaay bu nekk ci ñoom ak baax bu nekk ci ak mën a teral nit di joxe ay bendal comme ni nga koy waxe rek mhm. waaw ñu lay sant di la gëru waaw baax nañu di la delloo cant gi ay ca ba légui ma ci dal bi de si euh, Touba Gédé ñew ci dal bi xol gan ye yoon ginnaaw ma xolé gan yi nag xool waa dama ñew ko xamanteni mom mo ak yir gan ci kër gi la dëkk dëkk fi ci Touba Guédé dañuy dugg ci néeg bi fekk ko fi inshallah salam alaykum wa rahmatullah ziar len bayina ngi am jam ça va <laughs> wa ba leg ñuy fi Touba Guédé ñëw fekk kenn koo ni ci kër gi la nek mom mo dalal gan ñu fas waxtaan ak mom li nga xamne lañ waje magal gi ba tay ji ci 18 safar gi lan lañ li nga xamanteni mom lañu waje ci magalu si magalu bi nga xamanteni mo Cheikh su Bamba Khadim Rasoul da degna mouride murid dañ koy wajal wajal bo xamanteni wajal bu rëy la surtout wa Touba ñu fas waxtaan ak mom rek salaamaaleykum sëñ bi maaleykum salam ziar na la delo ziar wér tur bi naka la man Cheikh Maram sar Cheikh Maram sar waaw nan ngeen waje 18 safar gi waaw 18 safar nag moom dafa nekk bés bu rëy mhm. maanaam bu weer bi teroo rek mën naa wax ne weer bi yëpp 18 safar la si ñun mhm. ndax bis sax dañ koy màggal fii si Touba mhm. avant gan ñi ñëw sax bis bu ne ba waree koñ boo dem gis ñu def fa baas di berne ba keroog màggal ba jour màggal mën naa wax tey sax daanaka mooy dernier jour waa mooy dernier jour daanaka waaw. damay gis ne yéen waa Touba bu ñu nee 18 safar gi jot na da ngeen koy waajal wàcc seen lali génn saali yëpp pour jox yi loolu la moo ko waral. ah li ko waral mooy dañoo bëgg ci tiyaaba ji rek xam nga rek tiyaaba moom ñëpp ko bëgg moom. tey gan moom des koy ganale quoi. dégg naa sax ku ku leen dalalu sax da ngeen di mer. waaw loolu la tubaab moom boo ñëwul boo ñu dalul moom dañuy mer quoi kër goo dugg wax dëgg yàlla tubaab moom fépp a yem. kër goo dugg ñëpp dañuy ubbi seen bunt xam nga dañuy soxla gan yi ñëw. même boo fa xamul kenn sax boo duggee rek gan dañ lay teral def la comme ñeneen kan yi daal day mel ne yow dañ laa mas a xam te lépp sëñ Tuubaa war a rek na xam ne murit gi moom ñun ñëpp ko bokk xam rek képp kuy xama wuyu assuran la ilaha rek ci murit nga bokk ñun ñëpp bokk yam ñun ñëpp xama kon nag xama dañoo war ñun ñu ñuy tara gan yi ndax xam man moom dëkk ma fi kii sama wolof sa liir damaa xaw a gëj Sénégal ak moo fii nga dëkk fii nga dëkk fii mooy seen kër mais da nga nekk bitim réew voilà dëkk waaw bitim réew laa màggal gi moo la indi waaw màggal moom indi waaw kon gis nañu 18 safar gi daal yéen mbégte la ci yéen waaw bu baax da ngeen dagg seen da ngeen dagg seen yitte yëpp ñëw même boo leen nekkee bitim réew waaw mm-hmm. Mm-hmm. ba léegi bernay yi damay gis ni bernay day bëri torop sa gan yi lu muy ndaw ndaw da ngeen jafe benn benn yu bari la moo tax ngeen choisir benn yu bari yooyu te par rapport ngeen togg lu yàq. dañoo bañ ñu xiif rek. awagan moom boo ko amee moom des koy taral rek. a sax toog naan wur wuroo sax xama wut a sax wuroo sax xaar mu ma jox ma ndox wala damaa bëgg lii damaa bëgg lee ndax boo toogee ba mu la koy laaj rek xama yow sa benn des na ndax gan ñi moom defuñu moom xama ñëw moom dañuy dañuy xool fa moo gën a neex joxoo leen dara waxoo leen dara boo liggéey xam nga bu ñëwaatee du lay tegg am nañ seen fu lay bopp kon ndax gan moom boo ko amee moom das koy teral xam nga jox ko ndox mu naan indi boisson yi indi jox ko laa xam nga nan nan lekk ba suur daal maanaam ndax xam ne lépp ci màggal gi la bokk waaw. tey la màggal tey la jour kii màggal gi muy 18 safar li nga xamante su maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moom la woote pour ñu santale ko yàlla dégg naa yéen ñi xamante ni yéen suñu mbokk murid yi di préparé waat incha allah. dégg naa ko moom. Ah. noonu la demee. waaw noonu la demee waaw. ñu ngi lay sant di la waaw yow tamit ñu ngi lay sant bu baax baax di leen gërëm ndax seen liggéey rafet na lool ndax boobu ba léegi wax dëgg yàlla yéen tamit toogu leen sonn ngeen ci wax dëgg yàlla boobu ba léegi yéen a ngi war xama di def seen liggéey yéen tamit xama di leen ñaanal El bi yàlla suñu borom def ci xéewal ah, te mu màgg xama mu nekk. kii site bu mag boo xam ne ñëpp koy xam mu nekk télé bu mag boo xam ne ñëpp koy xam ci biir àdduna moo xam muy fii wala muy extérieur fépp ci États-Unis Europe yëpp gars yi ñëpp leen El Vision ca kaw ca kanam. incha allah waaw. ayca mi ngi noonu ba léegi Touba de lañ nekk nii ñu fas ñu doon waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo ñu fi dal ak ñi fi dëkk ak ñi nga xamante ni ñooy ak yër gan yi kenn ci mbokk mi ma tooga ci la bokk ba léegi de di ñëw doxantuwaat beneen bërëb wanaat leen leneen ci màggal Touba gi incha allah rabbi man xam naa ni berneel yi man ñibbi rek man ah man daal yàq nañ ma ci Touba gi ay ca ci kanam léegi maa ngi ci kaw de ci kër gi génn guma ko ba léegi damay ñëw dugg ci baas bi ni xool xale góor yi nii ñuy xool ay soble teg seen ataaya salaamaaleykum ziar naa leen yéen daal mel seen dal neex na de ah yéen ngi jàpp ci liggéey bi de ziar naa la delloo ziar bu ruwaay yaa yéen ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax. ñoo ci war a jàpp ndax Serigne Touba moo woote. Serigne Touba loo ko defal mu fay la ko. waaw jàpp taw bàyyi rek ñëw fii Touba Guédé instant ñu ngi jóge ba Caajaay Caajaay ngeen jóge waaw gi daal moom farataal ngeen ko bu baax a baax yàlla faratal na ko ndax sëñ bi nu liggéeyal dañoo liggéeyal sëñ Touba ñun amuñu fayam quoi amuñu fayam wax dëgg yàlla moom amuñu fayam moom mhm. waaw an bi baax lan moom wax dëgg yàlla moom teraanga mu ne la ñuy defal defal ñun ñu jóge Caajaay ñun ñu bëgg nañ at mu nit ñu fi ñëw indaa suñu yaay ñëpp di ziar ndax borom bis bi jaar na ko da ko liggéey ahmadu ahmadu borom jaam ñi liggéey na ko oh. barki Ahmadul Xadim <laughs> ayca ba léegi de maa ngi fii ci euh, Touba Guédé ma ñëw toog fii fi gaay di tracé soble ni yéen mën ngeen a tracé soble de ah grand ziar naa la sëñ bi boog sëñ bi ziar naa la waaye maa ngi lay delloo ziar soxna si. maa ngi am jàmm. waaye bu baax a baax. yaa liggéey bu baax a baax de. waaw gis nga ah liggéey bi dañ cee war a mun a jàpp. parce que ku tedd ki daal moo woote. Mhm. te fi mu wootee xam nga dañoo war a wuy si. Mhm. liggéeyal ko. Mhm. te ñàkk jëriñu la ñu wax. waaw instant xam naa ne ku liggéey ci diwaanu sëñ bi moom. yaakaar naa ne du pertement. waa ñoo gisee 18 safar bi. ah 18 safar bi moom waaw li li ci war lépp daal gars yi def nañ ko. waaw maanaam lepp dal sawan bawan rek aha sawan bawan rek ci sur safar bi wajar ko gisee daal jërëjëf waa jërëjëf soxna si Aïcha yow grand yow da ngay wuy ziar naa la lay ziar baa ban ban ban comportement la nit war am ci 18 ah waaw 18 safar bi da bàyyi ku dul képp kuy mom moom dañoo war mam te xam ne moom moo fi xotti mbaax waaw mhm. ma loolu mhm. soo ko amee tamit mën nga koo def nga def say café affaire yooyu noonu mhm. waaw soo ko amul tamit mooy loolu sëñ Bamba rek a fi nekk daal man Thiès. Thiès nga jóge mhm. mais damay gis yéen suñu mbokk murid yi yéen boo leen nekkee Thiès boo leen nekkee nga xam ne bërëb yi bokk la Touba 18 safar gi bi commencé da ngeen di safar comme ñëpp. ah waaw wane seen mbégte suñu maam Ahmadou Bamba Xaadim ah, waaw bien moo fi nekk di. Mhm. ku gëmul sëñ Bamba gëmoo dara. ndax moo fi nekk. Mhm. waaw. te ñun moom ay Baay Faal lañ ñaan yàlla doon waaw. ñu ngi sant di la gërëm. waaw jërëjëf. ayca ba léegi ñu ngi Touba fi euh, ci dëkk su maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñëw ci benn dal boo xamante ni ci euh, dëkkuwaay ba Touba Guédé Guédé la ñoo fekk fi euh, mbokk yi nga xamante ni ñoo dal ci dal bi ñi nga xamante ni ay gan lañ fi ñi nga xam dañoo dëkk ci kër ak ñi nga xamante ni ñoo nekk borom kër gi yor wàllu waañ waaye tamit ba njéegee ci kaw dañoo fekkaat ñeneen ñoo xamante ni ay Baye Fall lañ dal fi Touba Guédé ziar naa sañ bi waaw ziar naa la sa waaw Baye Fall maa lay ziar waaw delloo ziar yaa 18 safar gi waaw ah, 18 waaw sëñ bi moom ay mbiram moom xam nga toujours moom day yokk moom macha allah mm. chaque année rek gars yi gis leneen lu bees moom mm-hmm. sant yàlla bu baax ñu ñaan di ñaan xam nga ñaan gi ñu fa am yëpp yàlla nangu ko mm-hmm. waa xam nga màggal moom berndeel la rek la sëñ bi daana ñu ñëw berndeel ko rek mm-hmm. loolu dong la lu leneen cant la ko quoi cant la macha allah. fii nga waaw fii laa yàgg dal moom daanaka bi mooy sama juróomeelu at quoi macha allah. ñoo gisee ah, dal bi. moom alhamdulilah yaatu na féex na neex na xam lépp lu sëñ bi daal sant ñu ngi koy def si daal bi daal. Mhm, macha allah daal. noo tudd. Mansour. Euh, noo gisee 18 safar gi. waaw 18 safar bi neex na. Hmm. waaw neex na trop. Hmm. nan lañu a nan lañu war a lee nan lañu war a defee 18 safar nan ko si Amadou Bamba Xaadimu Rasuul wootee. Ah, xanaa ñu benneel rek. ah 18 ah, comme nu ko sama waxee rek mu ngi neex moom. Mhm. Euh, fan nga jógee ñëw fii. man maa ngi jógee Dakar. Dakar nga jógee. waaw yoon bi noo ko gisee. waaw yoon bi moom xat na trop si si kii entrée bi fii Touba mais booy ñëw boo jaaree Ila Touba moom lépp neex na daal tawféex. ah waaw waaw fii nag moom ah. wax waxewuñu waxu fans waxu taalibe waaw waaw ñun ñi nga xamante ni sëñ Bamba rek lañ bëgg nañ dem abonné ah. ak ñi nga xamante ni sëñ Bamba rek la ñuy nooyee ah. nañ dem abonné. télévision média